asalaamaaleykum mbokki internet Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme nag ni ñu koy baaxee rek di amalee saa su ne nee leen la lay saa xale ngeen di am ak libaas ndaama caméraman yi fépp fu ndaanaan nekk rek ñu daal di leen fay fekk jël tey nag ndaanaan kullu fadilin la ñu dalal tey taalibi Serigne Saliou bi la ñu dalal tey soppay xale yi la ñu dalal ki nga xamante ni tabarkalla nee naa leen 18 safar bi passé moo ko toj moom la ñu dalal muy Tawfekh Mbaye gis ngeen ko tabarkalla ndogu lu am solo loolu bépp xeetu lekk rek comme lekk laa koy wax damaa bëgg lekk bépp xeetu rek lekk bu ngeen di xalaat rek libaas a ngi raay biir bi mi ngi fi tey macha allah euh, euh, ndogu li riis na ndogu li neex na tey moom gën nañ gën na defati euh, yëfu dëgg-dëgg murit ndax murit yi ku leen xam-xam ne dañoo bëgg lu neex ba pare dañoo bëgg teral gan du ñu def rek lu may bàyyi ko mu nuyoo Tawfekh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax soxna laal la te di la bëggee di la ziare di wax jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké di ñaanal Serigne Mbeccu jàmm sëriñ Saliou suñu borom yokkay leeram ci barkeem di ñaanal xalifaam Serigne Saliou Thioune mu yàgg fi lool te gën a wér di siyaare mboolem ñu ñuy seetaan ñëpp te di leen bëggee waaw. Euh, ñu bàyyi la nga baalu àq ndax dañoo nekk ci jamonoy koor te nag am nga seen amel nga sénégalais àq nag ndax si na xale yëpp feesal nga ko. dëgg la dëgg la loolu moom maa ngi baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq ndax wax nga dëgg ndax téléphone gaa yi moom mel na ni feesal naa ko ci lien yi may envoyé ak photo yi ak événement yi ñuy waajal lu ma ci jot rek yónnee leen ko ñu esthétique ko wax dëgg fa yàlla te tàyyiwuñ ci benn yoon. kon mat na bu ñu amee occasion ñu sant leen gërëm leen waaye baalu leen ak ziar leen bu baax a baax a baax. d'accord euh, tawféex baaxoo nañu euh, saa su nekk rek ku ñu dalal euh, dinañ bëgg a xam ci lu jiitu ci yow tawféex fan la juddoo fan la yaroo fan la màggee avant muy ñëw ci ci ci ci musique bi ci ci ci jàng bi ci yan métier la jaar. waaw Lalla man maa ngi juddoo dakaar fii Géejawaay yaroo Ngaay màggee xel kom ngaay mexe waaw kon daan nga defar daal. ah defar naa daal defar naa daal moom laa njëkk a def ci métier. waaw mu defar daal ndax ku xam waa ngaay xam ni ay defarkatu daal lanu daal lu ngaay moom ku ne yàgg na ko dégg jaar naa ci dàll jaar naa ci tëyër jaar naa ci karo ñetti métiers yooyu yëpp def naa ko. d'accord ah, bi nga juddoo juddoo Dakar lan moo la yóbbu woon ngaay. waa li ma yóbbu woon ngaay mooy suñu dëkk cosaan ngaay la. Mm, sama tante soxna Issa Niang di sama yaay nga xam ne moo ma yar bëgg ma lool sama yaay jël ma jox ma ko ma nekk ak moom falaa laa jàngee fa defee lu bëree bare bëree bëree bëri waaw. Euh, de de tailleur yooyu ban métier nga ci njëkk a def. daal laa njëkk def waa ngaay moom xam nga ni lu mën a xew daal la ñuy njëkk ba pare. <laughs> day lan moo tax nga bàyyi ko est-ce que mën nga ci defar daal ba léegi wala jotoo ci woon kii. waa daal am na lu ma ci mën kay am na lu ma ci mën ba léegi bu ñu ma yóbbu woon fi mu ne ci place. mën naa monte li ñuy wax sarme di mbarakis bu ñu ko defaree ba pare am na benn ñaw buy nekk ci wet gi nii te tey rafet loolu mën naa ko mën naa monter mën naa dagg. kon lu tax nga bàyyi defar daal. waaw loolu nag eh, sunu sang bi suñu jàmm Serigne Saliou moo ma jox ndigal ngir ma arrêté ko. waaw moom mu joxoon ndigal ni ma naa bàyyi loolu xam naa nag booba la taxoon mu def ko mooy lii la doon waajal ci man. waaw ban tag nga mës def ci atelier bi. dégg naa da nga doon sàcc der yi di jaay xam nga yooyu yëpp ay kaala man mosuma faa def toj-toj nag xanaa daal daan naa def suma ma musaana fanaan comme événement koor gi nii buñ musaana fanaan damay damay damay obligé fanaan ci atelier bi ndax ay nelaw guddi mosuma ko am waaye suma fanaanee ba dem tëddi suñ kër sept lay laay yeewaat heure ndogu su tëddee nga xam ni xëy mi moom dama koy annulé. kon kay koor gi daawoo liggéey. mujj gi sama patron ni ma léegi bul fanaanati ndax <laughs> fanaanee ni nga ko bëgg a doxalee daal daa yomb daa toj toj yooyu moom daan naa ko def lu kii loolu moom daaw ma def leneen quoi. d'accord euh, léegi bi ci dàll yi après ci nga dem ci tailleur ci laa ci tailleur bi bi nag moom yàgguma ci ndax damaa ñëw arrangé wu ma daal. <laughs> ma xam ne fii du baax. <laughs> mais Libaas Libaas ban artiste lañ dalal la gum rek te waxul ne def na tailleur. papa kay loolu jaaxalu la artiste yëpp a def tailleur ñaataat nga ci am. man ngay fàtte naa ko yàgguma ci de ndax tailleur daa métti daal ay renfort ak ay ñaw cordon ak yooyu dafa soob daal <laughs> man dem ay asalem ak yëpp jaar naa fa waaye maa dem ba xam ne tailleur bi daal baax ndax man ma ay dagg ak ay paase <laughs> noonu xam nga. lan nga ci jotoon a man bi ma demee ay ranfor lañ ma jox ay mooy yooyu ñuy def ci yii ñuy def ci baat yi. Euh. cordon la yaakaar na lu tudd ak ay pa ay boyal ak ma xam ni yii arrangé wu ma ma ni daal daa <laughs> bàyyi mu sedd rek <laughs> téye rek yooyu moom. <laughs> ban toj-toj nga fa def. non tey moom mosuma ci def toj-toj def benn toj-toj ndax damaa teel a xam ni lii du baax ma bàyyi moo tax àgguma fu ma war a defee toj-toj daal. kon mënoo ci ñëw dara dara dara. ah man de xaw ma lu ma ci man xanaa sol. ñu ñaw ba pare ma sol loolu daal mën naa ko. d'accord bi nga jógee ci tayir bi ci lan nga daal. xanaa ci lii ma nekk ba nga seet <laughs> mooy way Sëñ Saliou. <laughs> ban année nga dem xel ko. xel ko maa ngi fa dem xéwal ban année la 2006 non 2000 non 2005 2006 2005 2006 waaw. boobu da nga demoon jàngi. waa doy xel ko moom dañoo jàngi ak liggéeyal sëriñ bi rek xam xel ko moom. daaray liggéey la ak daaray jàng mooy tarbiya ak jàng alxuraan jàng xasaayit defar sa jikko loolu taxoon Serigne Saliou Mbacke sañ joxeel ko waaw. d'accord euh, Tawfekh euh, du ma ko laaj lan moo ko booleek seex Béthio parce que am naa lu ma ci for euh, que ni moom su ma juumul waajuram bu góor ak ki jur sa waajur bu góor. ay mbokk lañ kon yow ci ci ci ci ci benn benn benn famille bi la. waaw ki ñuy wax kulli cuun moom mooy waajuru Serigne Béthio jàmm Serigne Saliou. Biram Debba Cuun moo jur sama sama baay alaay Cheikh Mbaye kulli Cuun ak Biram Debba ñoo bokk ndey ak baay Biram Debba jur alaay Cheikh sama baay kulli Cuun moo jur Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou kon loolu ak mbokk gu jege la maanaam Serigne Béthio moom bu doonul woon lii mu doon sax sama waajur la waaye nag bi mu doonee lii ba noppi danoo jël loolu lépp jënde ko ak taalibe ndax moom ci moom ak taalibe rekk fay jariñe waa lan moo la dugal ci ci ci ci bi. waaw way damay wax ni bu doon lu ñuy donn man ni dama ko donn ndax sama baay Alaaji Cheikh Mbaye ku ne xam na ko ci way Serigne saaliw cant gi mën naa ne mooy fi njëkk a yëkkati jërëjëfe Serigne Saliou Mbacke di ko defal Serigne Béthio def ko ci kanamu Serigne Saliou ay yoon dégg naa muy nettali ni ànd naag Serigne Béthio di dem ziare ji sëriñ Saliou ñu jub daare yu njurul boobu si Béthio bu daan ziare ji dañuy takk ay rajo ci oto bi. bi ñu daare njurul sama papa di way jërëjëfe Serigne Saliou nee na moo Fallou Seck ni ko kookee di ñëwle alaaj Cheikh Mbaye la nga xam ne Serigne Saliou daan na teewlu ay wayam Serigne Khadim Thioune mu sëñ Béthio it wax na ni Serigne Saliou daan na toog ba ci yàgg mu wolu ko ne ko alaaj Cheikh Mbaye waaye mu woyoon sa baay naan ko yaay sama sang maay sa jaam dama bëgg nga nga wayal ma ko moom Serigne Khadim Thioune nettal na ko ay yoon kon bu doon lu ñuy doon mën naa ne doon lu ma doon la waaye nag damaa jàpp ni ndimbalum Serigne bi la ndax damay wax ni bu doon lu ñu doon sama mag Sëriñ Saaliw xel koom doon ko te lu sama yaay jur moo ci gën a naqari baat kon yàlla dogal rek ci ay dogalam def ma loolee nekkoon ci suñu waajur mu sotti ko ci man may way Serigne Saliou Mbacke waaw. lan gën a manqué ci Cheikh Béthio. waaw suñu Béthio moom xam nga dafa doon ku kamal ci nun waaye bu dee am na lu ñuy ci moom rek mooy jëmmam jë ja nga xam ni. moonu saf lool jëmm ji nga xam ne dañ ko daan wéttalikoo bu toogee waxam ak kaddoom ak ay doxinam ak jëfinam nga xam ni bu musaana dugg cant ba ku mel ni suñu mag Papa Gueye mi daal di way wayam woowu mu naan jërëjëfe Serigne Saliou rek kanu war wala seex Béthio yaay jaamu Serigne Saliou Mbacke ba mu toppaat ca di ko dukkat di ko awu bu nu amee lu nuy manqué loolu képp la waaye moom léppam mat na fi nun lam lam lam lam mënoon ci bi fii ne fii mu ne lañ ko gën a yëg ci sunu bopp euh, lan moo tax euh, cantaay jox la bopp parce que gis nañ ñu bari léegi ay woyu euh, kii la ñuy ay woyam moom la dugal lan moo tax loolu lan moo tax loolu. waaw xam li tax cantaay jox na bopp ak taalibi Serigne Saliou ak mboolim jullit yi ñëpp mm-hmm. du dara lu danoo yor mbirum waaju baax di ko doxal. mooy du question ne man lañ jox bopp waaye sëriñ bi lañu jox bopp ndax ci sëriñ bi rek lañu ne moo waral seenu cofeel ci sëriñ bi ak seenu bëgg ci sëriñ bi ak suñu borom tàmbalee leeral ni dëgg rek kay mujj te sëriñ bi rek kay dëgg moo waral ñu ci bari dem ba am na ñoo xam déglootuñ sax musique ba leneen ñu ci bari ku ci am xew tey baa nga am mariage sa xel ci papa gi mi daal di lay dem baa ji Tawfekh Mbaye ngir nga woo leen fay leen ay koppar ñi leen ñëw leen santal ma Serigne Saliou Mbacke loolu nag li ko waral mooy mbirum Serigne bi képp la dañoo yor loo xam ne day yëfi jàmbur ñu ñu ñu ñu yor ko noo koy doxal te nit ñi bëgg Serigne bi loolu rek a waral nit ñuy doxee nit ñuy doxee ak ñun. d'accord euh, sa 18 safar bii passé. bës bi bës bi doy doy na waar loolu ay cumbukaay la wala lan la. non déedéet 18 safar xam nga suñ Tuubaa nag. bu dee mais boobu moom boobu moom ah doon moom nangu rek nag boobu moom am am am am am nga ci ay saafara yoo ci laal. waa ah, baña saafara si kay lenn képp la muy suñ tubaa ndax suñ tubaa ku ko laal laal nga ngeen gi saafara te bo 18 safar kenn du borom ku dul suñ tubaa te bës ci suñ tubaa la la yem moom jëmmi bës moom ci suñ tubaa la ne suñ tubaa maam seetlu loolu tey boo demoon ciy jàng sax buñ tuddee ñëpp dinañ ñax waaye saa buñ tuddee suñ tubaa baas bi riir loolu nag mooy suñ tubaa mooy borom bës 18 safar fa la bës dëppee moo waral xam nga daam loo xam ne du doon ni yow yaay am bës. waaye boo laalee lu am bës loola dalay yóbbaale ca bësam moom wa dañoo laal nag mbirum sëriñ tubaa ndax damay wax ni Serigne tubaa waa ju ko gëm day gën di baax koo laal mu baax ku la laal baax say mbir di baax Serigne Touba mel noonu. moo waral fi ne bu 18 safar ñëwee bu ko keneen laaloon léegi waaye kon na neen nu neex nga gis ni kooku mooy yor bës bi kon du question ni Tawfekh moo yor bës bi baa kooku waaye bës moom kenn ko yor muy sëñ bi saa boo ko laalee am waaw. Euh, fan yee ci ginnaaw ñu gis ne Tawfekh dafa defoon sook ak euh, ak otoom ban leeral nga ci mën a indil sénégalais ñii ne mayaat nañ la sax beneen oto ginnaaw loolu taalibe yi mayaat nañ la ay oto oto. amiin ci barkeb Sëriñ Tuubaa waaw moom euh, choc boobu moom dama ciy santaat rek ndax kon ay jaamu yàlla lañ di ay jullit di ay murit natt buy dal nit rek war a mën a dal suñu kaw te mu mel ni suñ borom woyefal ko ba mu woyef ba demee noonu mu demee du ma ci def lu dul la ma cay leer rek mooy sant nañ ci ndax dara jotuñu dara jotul kenn ku nekkoon ci oto ba kon loolu ak sant la kenn xoosuwu ci loolu nag li ko waral du ma ci def lu sant Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou ndax keroog bi mu may jox oto bi lim ci njëkk ñaan dani maa ngi ñaan yàlla na oto bi mucc Tawfekh Mbaye mi may jox oto bi mucc waaye ku gis sama soog bi xam nga ni oto bi mucc na Tawfekh Mbaye mi jox oto bi mucc na ndax oto bu saaraan daaneel lu mat ay garab ñaari garab mu mbëkk ba yooyu tëdd te kenn gaañuwu ca te àggul ci moteur ba kon loolu moom oto bu mucc na ndax oto bu ñu ko doy wax moteur a tax te moteur ba yàquwul la ci yàqu rek mooy yenn pièces ay amortisseur te ci saasi bi ko mbokk taalibe yëgee lañu am ñii dajale ay koppar ñii lu ne ba fi mu weex ak yow oto bi ma ngi garage ñuy defar ci mën naa ni sama alal ju jóge sama poste tàbbeegu ci lépp nit ñee koy def kon loolu ak cant la. ñu ngi ci santat Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou bu baax a baax baax a baax. waaw ah. kii toog di yëngal bopp da yàlla bu boppam bi wadd waaye yow dañ ñu bëri dañ doon wax ne <laughs> tawféex bu fi jo euh, sëñ bi bu fi jógee tawféex day fay. Mm-hmm. parce que mënul yóbbu boppam lan moo tax nit ñi doon gis loolu sëñ bi dem fi mu mel ni tawféex dafa gën a tàkk. waaw loolu moom li nga ma laaj nii moom sant naa. ñii di xoolal nii say lan la nii. <laughs> yow indi sa renfort. <laughs> voilà da ngaa xorom yow. aywa doo ma jëlal caméraman bi lii ma jàmm la yàlla bu sa loos bi. xam <laughs> nga loolu nag sant naa bu baax ndax li nga wax nii lu wér la am na ñu doon wax ni te ñooñu dañoo dañoo dañoo xamul rek waaye man suñu becco bi mu may bëgg a def ni mu may def booba mboolem kuy way yaa ngi ci cant gi di way maam amul kenn ku ko bàyyi baa nga jënd baa nga démissionné amul Serigne Béthio bi may fekk Touba 2015. ma wax ni ma 17 avril bi may def Thiès damaa bëgg nga ñëw ndax dama laa bëgg a taal réew mépp xam la boobu ñëpp a ngi fi. yàlla dogal set avril ba ñu dem ba ci biir ci biir baas ba am yu fa xew loola déborder cant ga ba mujj ma way waaye suñu béykat boobu la amoon yéene wala fi nag dañuy wax ni tombe moo waral ay gaaf te yàlla it saa bu bëggee def ci am réew président mën naa jële ka kañ jàppoon ni mooy président ba mën na ko faa jële teg leneen xaj na loolu mën nay waral moo tax ma ni tombee waral ay gaaf waaye ñi doon wax loolu ñëpp dañ doon wax ni am na sax loo ci bàyyi ndax am na ñoo xam ne dañu wax ni tawféex sëñ bi da koy faja am waaye loolu it sant naa ci ndax man bu ma demee ba sëñ bi mën di ma faja am meram kon sant la ci man waaye damaa bëgg leeral ni demewut noonu ndax sëñ Béthio merut ba koy faj ndax kii mer mooy kii am dara ba ci yàgg mu manqué ko yëg ni manqué na ko te sëñ Béthio amul dara lu muy kooku sëriñ Saliou képp la yëg moom amul dara lu muy màgg sëriñ Saliou képp la yëg te lu ci waay yor ci nun nii ba jàpp ni suñ bànk ko moo ko def ci yow kon loolu ñi jàppoon ni sëñ becco daa am lu tax mu def taw tawfiix mbaay ñooñu dañoo juum dañoo xamul sëñ becco ndax sëñ becco dara safu ko lu Serigne Saliou ñun ñi di way Serigne Saliou boo gisee nii mu ñu def mu def ñu ñoonu mooy Serigne Saliou mu ñuy tudd ci kanamam moo tax mu jàpp nu bëgg nu fonk nu waaye du dara te loolu ñuy wax ci Serigne Saliou ba mu neex ko moom moo ko def ci ñun moo ko tàggat ci ñun ñu mën koo def ndax moo fexe ba bëgguñu lu dul Serigne Saliou moo tax ba taluñu lu dul Serigne Saliou moo tax ba xamuñu lu dul Serigne Saliou kon loolu moo ko def ci ñun. waaju waaju baax nag bu mënee dara ci kanamam ba jëpp naan lii nangam nangam bu fi jugee la koy gën a mën te li nga wax wér na man bi fi suñu béccoo melee ni lu fi jugee ci saayir ci la samay mbir gën a yëkkatiku ci laa gën a doxalee loolu nag sëriñ bi mooy atte ak man ñi nga xam dañu wax ni bu sëriñ ba ci jugee ay mbiram taxaw sëriñ bi may atte ñoom te àtt bi day soog a tàmbali incha allah. waaw euh, dégg naa cofeel bu mu am ci yaw tax na euh, bi mu euh, noppaloo bañ koy indi sax ci biir kii bi sa sa sa son lañ ko tegal yan leeral nga ñu ci mën a indi ndax loolu yegg na ci say nopp. waaw loolu moom lu may santaatee ci moom la ndax bi mu nekkee France bi may jëndal sama oto bi samay son la doon déglu ba ci yàgg mu yóbbu ko ci àll mu mu def audio wax li ci wax loolu mu ngi internet bi ñëpp dégg nañ ko jaruma ciy ñëwaat mujj gi mu joxe mu nekkati. moo xam ci oto la baa ci këram baa buy dugg si ci biir mboolem ak buy génn yépp nañ koy tegal samay way loolu moom am naa ci lu leer ndax vidéo yi sax ngi fi kaka daan teg itam ba tey ñu ngi déggante muy Papa Guèye mi ka daan toggal foofee ci Bordeaux maa ngi koy jaare bu baax li nga wax itam soxna Batoor moo ma ko wax ak Seydina Thioune wax na ma ko ak sëriñ Diop ñi nga xam ne ñoo nikkoon ci jag privé bi muy ñëw ñoo ni ma say way lañ teg ba egsi Sénégal ndax li tax ñu def ko mooy Serigne bi moo leen digal ci loolu loolu nag ak cant la ci nun rek mu bëgg noo sagal di ko defee noonu waaye ñu ngi ci sant bu baax te te te xam nañ ni ñun duñ ci dara lépp moom waaw. Euh, diggante soxna Aida euh, euh, saaliw ak diggante Serigne Saliou mu mel ni coow li yàgg na ba pare dafa gën rek di di di di avancer lan nga ci mën a wax pour lépp nekk benn. waaw lépp nekk benn moom loolu lañuy ñaan ndax Serigne Saliou Thioune mooy xalifa général kullu cantaakoon loolu kenn waranteetu ko te mate na ko sëkk soxna Aida it ci njabootu sëriñ bi la bokk doon koo xam ni ku jàmbaare la ci liggéey sëriñ bi puis suñ beeco nekk ku ne gis na pësteefam ak njàmbaaram ba sëriñ bi def ko ni mu ko def teg ko fi mu ko teg loolu it xam nañ ko bu baax waaye kon yoonu murit moo am nu muy doxee mooy lu mën a xew rek dañu am kilifa muy soxna Aida di feex Mbaye di keneen ñun ñëpp suñu Saliou Thioune mooy sunu kilifa ndax li loolu li tax bëgguma di ci di wax ju bari loolu mbirum sëriñ bi la te xañ na mënuñu ci dara rek lu dul di ñaan waaye soxna da daa doon koo xam ni moom ak soxna Batour soxna Dia dañuy dañuy njaboot sëriñ bi te am ak njaboot ak sëriñ bi te suñu Saliou Thioune soxna yooyu yor ay rakkam te rakkam yooyu it bu ñu fi yàlla bàyyee. ñu dund ba Serigne Saliou Thioune yàgg fi lool te wér ba am téeméer at ak nangam rakkam yooyu jëmmi jamono dinañ ñëw dinañ toogee jotaayu Serigne Béthio te bu nu bëggee ñoom bu nu àggee foofu mbooloo mépp nangul leen faaw ñu ñëw topp seen mag ji ndax yoonu murit mooy doxe noonu kon ñu ngi ñaan njaboot sëriñ Béthio gi yëpp la ko dalee ci Serigne Saliou Daaru Salaam Serigne Saliou Njurul Serigne Saliou borom Ngéejaan soxna baam bi Serigne Saliou borom Janatu ñoom ñëpp ñu ngi ñaan yàlla na Serigne Touba woo mat leen ba teg leen ci seen loxol mat ci barkeb Seexul Xaddim waaw. est-ce que déggante nga ak euh, Soxna Aida. waaw non déggante wuñ fi nag waaw déggante wuñ fi ndax man ku ne xam ne dama sëriñ ak Serigne Saliou Thioune ko te du damaa beddi kenn nag ndax ñëpp ñu baax lañ te suñ beccu léppam lenn la te man xalaatuma dara yi suñ beccu ma koy desal ginnaaw ndax sama ngor mayu ma loolu. ndax mu ñu mel rek suñ becco la te kon lépp yëf yi suñ becco la ñun li ñu bëgg mooy lépp rafet waaye maa ngi ñaan muy soxna ay daak soxna Budor soxna Adja ñëpp yàlla na Serigne tubaa boobu mat leen ba teg leen ci loxol Serigne Saliou Thioune incha allah. Euh, Tawfekh ban relation la am ak ak euh, waykat yi nga xamante ne ñoo ne ci biir cant bi. xanaa relation mag ak rakk rek samay mag lañu samay samay xarit lañu samay lépp loolu jàmm képp lañu séq ak bëggante ak jàppante. ci Papa Gueye mi daal di Omaro mi ngay wax Manoumbe Thiam jaajee ñoom ñëpp daal su ma limee mën naa bañ jum sax waaye dama dul ñàkk matal gi mat ci man daal moo tax waaye boo limee ko ni Papa Gueye lu baale nga ñu bari di nit ku baax moom itam di koo xam ni wax dëgg fa yàlla liggéey way yi ñu way sëriñ bi def na ci lu am solo solo loo xam ni lu lu lu ñu ndaw ñi luñ mën a roy la. luñ mën a jàpp la loo xam ne mën nañ cee jaar dimbali ci ñi nga xam ne ñoo war a ñëwaat ngir lii ñuy def ñoom it ñu nekk ca te yëkkati ko waaw ndax nit moom bu dee la muy def yaatal na ko bëgg ay rakkam yi ko ci fekk di leen conseil ndax ku mel ni papa gi mi daal di mën naa ci moom lu bari ndax bëri na lu may dugg dama koy woo waxtaan ci bëri na mbir yi xew itam dama koy woo ñu jokkoo ci su ma naree jàddi damay woo ni ma rakk bul doxee ni ne ak ne. kon kooku moo ko cité rek man cité naa ñëpp sa diggante Mohamed nag juboo ngeen. Mohamed seen xuloo bi yàgg na de. Mohamed nag xuloo wuñ de man xuloo wu kenn xanaa déggoo sama wayu bees bi. parce que temps gis naa ci net bi ñu jël sa son jël son am ne yéen ñaar da ngeen di gaaruwaale jël seen ñaari photo yi dugalante ko muy muy muy wax nga koy tontu xaw ma ngay wax mu lay tontu. loolu moom. nit ñee koy wax. mooy moo wayee bu tàngee nga daw bu seddee nga ñëw. ñu ni moom laay waxal waaye xam nga daa am loo xam ni du question da ngay wax ak kenn waaye yenn saa yi mën nga wax sax benn wax xel yi dem ci ñëpp xel yi am ci kum dem mën nga benn wax ki koy déglu ci saa si rek xelam am ci kum dem léegi nag loolu li koy waral mooy day tax kooku xaj na noxol boppam ndax li tax bu ñu waxee lii xel yi dem ci moom daal subaa da ngay xam man nag waxuma kenn bi may wax loolu bi ma koy fent sax dara xewul waaye lu tax boo waxee dara xel dem ci kenn day mat nit ñi ci jëmmam analyser seenum xel nag. mais moom waxut lu xam ne xel yi dem ci yow. ah déedéet na loolu mën naa ne waaye mën sax xel yi sax mën naa bañ a dem ci man waaye mën naa wax loo xam ne xel yi dinañ dem ci la ma waxoon rek est-ce que mm. ah, loolu mën naa mais dañ leen di gis yéen ñaar léeg-léeg ba ci démb moo ci mujj ngeen di dajee ay cant mais kenn du am ak sa moroom waxte euh, su ma juumul moom euh, nekkoon na seen kër ay jamono tawat sa yaay jox ci ay tànk yu am solo. yu bëree bëri sama yaay yóbbu na ko ci yoon ci ay yoon ci ci ñuy ñaan ñu ñaanal ko te li ma xam na ko bu ko déggee du ko weddi ndax lu am la ndax fekke naa ko te ba ko sama yaay di yóbbu ci ñooña boobu man maa ngi weete sama yaay yóbbu ma la lay wax rek. léegi sa yaay lan moo ko bàyyi la fa. ak mbaax ak cofeel ak xam ni ñëpp ay doomam lañ ndax sama yaay moom noonu la mel waaye nag loola maa ngi ci sant ndax yàlla fay na ko ci loola yàlla fay na ko ci ndax man boo gisee ni may doxee rek nga xam ni suñu borom dimbal ni ma ci xol daal ndax sama waajur liggéeyal na ma lool. boobu moom sëriñ lan lañ ko doon defal pour ay cumbukaay ci way bi. ah dañ ko boobu daa tawatoon rek moom moom xam na. <laughs> boobu xam na li xewoon boobu moom tawatoon na rek. ban façon la maanaam nga ñu mën a wax. non xaw ma sax man façon tawat la waaye xam naa ne daal tawatoon na moom booba tawatoon na lool ndax bu xëyee fajar ci kër gi lay ñëw moom xaar bi <laughs> xaar meer bi génn. <laughs> mais ci mukaay la dañoo téye baat. ñu ànd ñoom ñaar daal dugg ci seen ruq. ba bu ñëwaatee saa dem meer ñëwaat mu xëyaat ñëwaat ñu dellu suñu may ko giir daal. man daal mais feebar feebaru lan la woon. feebar xaw ma nag man feebar loolu. yaa ko gën a xam xam nga kat moom. dañoo téye woon baat a ah, lool loolu xaw ma ci xam man damaa xam jën tawar la man daal la may gis moom a ñëw rek. jekki naa jekki daal gis yëf yi tàmbali di baaxaat ak ma xam ni moom meer bi am na solo daal. <laughs> kii comme jotal yaa <laughs> mais seen relation kon gannaaw loolu yëpp am lan moo tax rek ngeen jékki-jékki daal kenn kenn déggatul xam nga nit ñi commencé di di di wax lan moo waral coow li li waral coow li wut na suñu tubaab man sa xaw ma ko ndax problème bi mooy man amuma ak coow kenn ndax man problème bi mooy sëriñ bi lim defal Mouhamed Niang. looy darngu rek di dem jege si. waaw dama dama. <laughs> li ma dala moo tonton ba bee neex lool te fi mu ne li ma ndogu bari xam nga gis nga ndogal ni mu demee sama yaay Adama Mbaye ak suñu ji bi ni ñu defaree yi fi daa neex ma jël ci lu baree bari xam naa moom ma tàmbalee jàpp fii ma xew waaye euh, man man bokk man. personnellement jotuma kenn dara ndax man li ma sama digg moom yëpp maa ngi koy def te loolu àdduna seede nañ ko. sama way wees yi ma génne lim ci ñiy way sëriñ bi tudd naa ko ci. bi mu amee it ku ci ne ñoom woo nga ma remercier ma xaj na moom laa ci laa ci dégganteegul daje nañ tamit waaye waxu waxuma ci dara waaye xam naa loola moom la. mais seen daje naka lay demee da ngeen di nuyoo rek ku nekk toog jàpp ñam. ah bu ku nekk toogul nu muy def. parce que gis naa démb benn vidéo nga koy regeju man kat nag bu dee. bu dee laa xeelu bu dee laa def naa teraanga ju jëm ci yow donte sëriñ bi tax ma ko def. def naa teraanga ju jëm ci yow te bi rek tax ma def ko sàkkuwuma ci sax nga woo ma baa dara waaye daa rafet ci bu nu dajee ma def dara tudd la ci nga ni ma kat rakk dégg naa li nga def naayis na sama sedd na ma xam ni kii bég na ci li ma ma def waaye daje na ñaari ñoo xam ni waxu waxuma ci loola dara. sàkkuwuma sax waxuma ci dara waaye dama wax rek li gën a rafet tey bu ma daje woon ak yow nga defal ma teraanga su ma daje woon la wan ni teraanga ji gis naa ko yëg naa ko loolu nag heureusement ba bi ma koy def defuma ko woon ngir mu mer defuma ko woon ngir mu bég dama ko defoon xam ne lu war a def la ci sama digganteeg sama ay mag ma def ko ci ñoom waaye nag wax dëgg fa yàlla ñëpp ñi nga xam ne tudd naa leen ci way woo woon nañ ma jox may xéewal ni ma do bég nañ ci li nga def ndax daam loo xam day encouragé ndaw lu ne ci yoon donte sàkk wuñ ci woon loolu waaye ku ci mel ni papa Guèye gaa yi ku ci nekk woon na ma yëkkati ay koppar jox ma ni ma kat li nga def bëgg nañ ci nangam ak nangam ndax waykat ba daa waxoon ni euh, waykat ba daan way yeneen matta jomba way ku koy jomba way say buntu lu ñuy tëj ba dootoo way te way Seydina Mohamed ak way Serigne Saliou lenn lanu ñii way Serigne Saliou ak ñi tagg Seydina Mohamed lenn lanu kon ñun ñi nga xam ne dañoo doon ay ndaw di way Serigne Saliou suñu mag yi fi jaaroon di way mat na ñu leen di delloo njukkal te du ma yem ci lii rek ñi nga xam ne des nañ te tuddaguma leen danaa defaat boo xam ni danaa leen ci tudd waaye li gën a rafet nag mooy li ñëpp def moom mu defoon ko. moom li ñëpp def mu defoon ko waaye nag bu ko deful kon ñi may seetaan ak ñi may déglu ak ñi xam nañ xam ne man jotuwuma ak moom léegi nag. mais léegi nag léegi nag li ci des yéen journaliste yi yéen laa koy wax ñi may seetaan ak laal la yow mi toog ci sama digganteeg Mouhamed Niang bëggatuma sax kenn di ma ci laaj dara xam nga tax. damaa bëgg moom ci jëmmam ngeen dem laaj ko lan la sa diggante ak Tawfekh Mbaye bu dee moom wax leen ko bu dee man laaj nag ma ay yoon leeral naa leen man def naa li ma war ci sama diggam moom léegi nag laaj leen ko moom ba xam lan la moom man defuma ko dara de jëlu may waayam di ko way samay way laa yor jëlu ma programme am jëlut sama programme nanguwuma fan sam. mosoo ferte for tamit ci weewu boy nee na def nga ko lii wala wax nga ko lii. waaye lu ma ko def jëlu ma fan sam jëlut sama fans yaa ngi dégg jëlul sama wërsëg jëlu ma wërsëgam kon loolu problème duñu ànd yaatal doxal yëfi man de lu waaye am ci yëfi yi ne naa la ko waaye li ma am doy na ma d'accord ah. Ah, mu nekk lu am solo boo gisee tamit euh, li tax ñu koy laaj euh, parce que daf fi nekk rek macha allah di bëggal nit ñi yow tamit nga nekk fi di bégal nit ñi euh, kon ñun yaakaar naa ne ñun yéen ñaar ñëpp kenn ku ci ne rek intérêt la ci ñun ndax buñ ko dégloo békk buñ la dégloo békk ba pare ngeen bokk li ngeen doon kon buñ nit ñi di wax ne am na jaxasoo wala am na xaaj ak seen yoon la tamit mu leeral comme ni ngeen leeralee ak mag ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ñoom Papa tamit ku ci mën a dox jàmm rek nga dox ko ndax jàmm ay projet yi lan la projet yi waa bokk na ci incha allahu rabbi bi ci jiitu mooy lan demi korité bis boobu may def mbàkkee di ci bégal soppe maa ngi ci woo ñëpp incha allahu rabbi foofee ca théâtre vétérinaire bu mbàkke maa ngi koy waajal man ak soppe yi waa Touba waa waa Dakar ak fépp ngi koy waaj incha allahu rabbi di leen ko yëgal te bëgg nag ngeen ngeen ngeen ñëw ci incha allahu rabbi maa ngi la ciy invité moom yaay sama invité <laughs> ko defee beneen ba ca des mooy bu ñu jugee grand fële. Mbacke yaa ngi jëm Grand Théâtre. waaw Grand Théâtre moom du la ñëw waaye nag danaa am fu ba noppi ndax danaa dem Ngaye Ngaye Mexe sama dëkk buñ tabaskee ba noppi buñ buñ tabaskee ba noppi ca laay dem Ngaye incha allah ak Thiès Dakar nag laa koy tëjee muy Grand Théâtre incha allah. Grand Théâtre nga waaw Grand Théâtre kay. Djibass ñaata la 1800 places wala ñaata Grand Théâtre ñaata place la. 1800 places de damaa bëggoon sax ci diggante bi. maa ngi koy wax directeur bi na yokkal place yi maanaam nañ fexe. nañ fexee tojaat salle bi arrière ko def ko mille neuf mille. non deux mille. dafa tuuti tuuti. junniy par maanaam kii laa bëgg a wax un million place. un million place laa bëgg. <laughs> na ko def un million place. du question ni nit ñi ñun la ni wuysil waaye nit ñi sëriñ bi lañ bëgg ba saa bu ñu leen woowee ñu wuysi ñu moo tax du question teguñu ko ci ay xew yooyu xam nga fuñ ko teg ci sëriñ bi. nit ñi sëriñ bi lañ bëgg di sëriñ bi lañ fi nekkal te ñun ci sëriñ bi rek lañ leen di woo incha allah waaw. Euh, yaa ngi waajal euh, beneen album bu bees wala ci single bu bees lan lañ la mën a xaar. waaw maa ngi waajal ay clip album bi moom xam naa damay bàyyi ba deux mille vingt trois allah deux mille vingt trois laay def album boo xam ne vingt trois son laa ciy def incha allah damaa bëgg. su ma defee deux mille vingt trois vingt trois cent bàyyi deux mille vingt quatre. Marquis li nga maa ngi koy doog a dégg de. ma la. deux mille deux mille vingt trois laay def. deux mille vingt trois. vingt trois cent laay def bàyyi deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq ma def vingt cinq cent. bàyyi deux mille vingt ma bàyyi deux mille vingt sept ma def. vingt deux mille laay topp deux mille bu ma tëbal rek. bu ñëwee ba 2030 tamit ma def 30 son 2000 1900 ma def 1900 son yooyu daal lu fa laa ko fas yéene teg incha <laughs> waxtu jeex na xam naa dañ ne bàyyi nga tàggatoo laata loolu tamit fan dégg na yaa ngi waaj takk ñaareel loolu foog nga leeral. yow kër. ma dama la ne yaa ngi waaj a takk ñaareel tontu ma. dama dama posé ma posé la kay. question ci kaw question mënul tegu. mais léegi tontu ma pare. mais yow tontu ma ba mais yow tontu bi war a tontu ci yow la ne fi mu ne faaw nga tontu ma soog a tontu. ma ne ñaareel bi fan la toll. am nga borom kër. doo tontu taw feex takkum ñaareel bi. am nga borom kër yow. léegi su ma la waxee aw ba su ma la waxee am naa lan moo leen. bu dee amoo ma jël la nga nekk sama ñaareel. waaw même bàyyi mu sedd. am daal lekk ba mënta ree. am nga. eh tontu si li ma lay wax. am nga. boo am boo amul rek moom nañ waaj bu ko defee tey jii sax mën nañoo dem ci laylatul xadar bi sëñ bi def ko yaa ngi dégg bu dee amoo nag bu dee am nga nag maa ngi tuubal ki nga am waaye boo amul nag <laughs> ma jël la. léegi keneen ki ngay waaj a takk nag. non yow am nga rek. di du ragal jabaram. waxuma kenn man fi mu ne. li ngeen def mën na rey jigéen da ngeen xëy xëy rek takk gannaaw nekk nga ci ban bett la kay yow leeralal askan wi. nee naa la boo amul yow laay takk bu dee amoo nag bu dee am nga nag ma bàyyi mu sedd. d'accord ñu ngi lay bàyyi nga tàggatoo ak waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp tey bég di wax nii ñu ngi jégalu mboolem lu ñu fi wax te du noonu rek nañ xam ni sunu sunu matati sunu matadik bopp la. lépp loo xam ne am na fi tamit noonu nañ xam ni sëriñ bi la ñoo ngi sant bu baax laalal di bég eh, di nuyu sa directeur eh, topp di nit ku baax nga xam ni sama mag Sëriñ Saliou Mbaye borom njurul moom ma booleeg moom di nit ku baax a baax baax maa ngi koy ziare. moom nag yoreel na ma benn clip boo xam ne ne ko maa ngi koy xaar incha allah. waaw may daal lii nag. ki ma jox daal lii foofu laa fa yéene jëm mooy jibi. jibi da laa <laughs> fàtte woon. yow xam nga xam nga xam nga yow la yow. ke sëñ Tuubaa fa nga tas. xam nga jibi mënuñu ko fàtte. ndax problème bi mooy boo gisee tey ndogu li ñu def te lépp mu waral ko ak sunu yaay Adam Mbaye lépp di moom gis nga ndog yi fi xew te moom noonu la dëkkeek murit yëpp palaasam fii nga xam ne fa laa jëlee dàll yi baa yaa ngi jël dàll yi jëlal dàll yi. bu ko dégg palaasam nga xam ne mooy àllul Serigne Saliou nekk fii ci. waxuma la nga de. mooy publicité tey. maa ngi lay jaajëfal ndax place bi fii Pape Gueye. aslem Grand Médine. le grand place fa la ne mooy alalu Serigne Saliou Mbacke dàll yii ak yi may sol fan yi gis nga yi ma xewal waxoon naa ko jibi ni ko bu programme bi tijjuwaatee ba Macky Sall bàyyi réew mi gars yi danay xam ni lépp dëgg la waaye jibi xam na li ma ko doon wax gis nga ndogu li ñu fi def te ñoom wax naa sànq maa lay wax ne la place ba 4 heures la ñuy añ ba 5 li ko waral mooy añ bi day teel a pare waaye ñoom dañuy xalaat ni murid yi mën nañoo ñëw à tous les moments mën nañoo ñëw moo tax ñoom dañuy xaar fi ne buñ demoon ba waxtu wajot lu mat fukki murid tàbbi ca place ba danay añ ba mu des xam nga sànq nga wax ci ndogu li naan ndogu li dafa bari de xanaa dañ laa wax ne àdduna bépp ñëw waaye suba boo fi ñëwaatoon day yokk doo am foo jaar ndax ndogu li ñoom nag ñoo mel noonu ñu ngi ñaan seeni xéewal yokk waaye ku bëgg daal dàll yu baax diggante dàll ak mbasin ak saag ak tiseeg jasneeru vaal. waaw baax na waaw man wuy ma ma ne. ma ne mbas mi. ndimbal li ndax yéen am ngeen seen wàll yéen jàngkat yi. ah am nañ ci kay. jot na bu njëkk ba ak bu mujj. jot nañ bu njëkk ba ak waaye am na nag ñu jotut waaye nag nit dooni jot naa rek naan jot naa lépp ñëw na <laughs> eh, waaw am nañ jotut te it eh, ñun wax dëgg fa yàlla sax lu jiitu loolu ñu ngi doon dox ci ndimbalum sëriñ bi loolu xaj na lu yàlla la lu war suñuy droit la naa ko bañ sax tuddee ndimbal suñuy droit la ci suñu digg ndax lu way yi ñuy def am na lu muy dugal ci ñi nga ci culture bi am na lu mu def kon loolu tamit nañ koy waajal ba bu ëllëgee it nañuy yokk li ñuy jox artistes yi nañ koy yokk mu am solo te ñu xam ni ñun ñii di way diine it ci fi lañ bokk. ñu gën ñoo jox sunu sunu gëdd ak sunu cër ci fi waaw. affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. Hmm. noo ko gisee. dara tey sama yónnewu ci. mais coow li bari woon na xale yi génn ci mbedd mi ah, ah, yàq lu bari toj lu bari ban gis-gis nga am ci loolu. ah loolu kay kon jeex na moom ak cant rek la moom kay nag sax moom kay saay <laughs> loolu <laughs> baax na moom kay lépp baax na. <laughs> nga ne aji da kay lépp baax na moom daal ñu ngi ñaan ñëpp mucc rek te yàlla def fi jàmm te yu mel ni yàlla bu mu fi xewati daal ci barkeb Serigne Saliou Mbacke loolu rek la ñuy ñaan ndax loolu arrangé wul kenn te mbas mi jeex fi tàkk nag lu jëm ci wàllu programme yi nag moom état bi bu mu xalaatati sax ci lu jëm ci tëj ko yooyu moom nañ ko arrêté ci nu mu gën a gaawee ndax barki démb damay ndogu ah. xéewal sama rakk naa ma yëg nga ne Macky Sall neen day tëjaat réew mi sama ndog li fa la yàqu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 13 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy te bu ñu nee góor ngóoraa tax